Hidaya mu koy amal guddik àjjuma gu jot ci waxtu wii bu 22h30 jotee jàpp 6 h ngeen ci ànd ak seen mbokk oustaz Alioune Sall ak seen mbokk Mbacke Sylla ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di amaan mbégte ci dellu siwaat ci ak yéen di leen dokkeel bu baax ci déglu gi ngeen di déglu rajo bi rawatina programme diine yi nga xam ne moo fiy jàll rawatina jotaay bi di Albidaaya di nuyu ñu ne ci biir réew mi di nuyu ñu nekk bitim réew mbokk ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum di siwaat ak yéen ci jotaay bi niñ ko baaxoo defee eh, lu tolloog ñetti alxames ngi nii wala ñeent yoo xamante ne Oustaz Alioune Sall dafa génnoon génnub jàmm niñ leen ko baaxe woonoo waxee dem fële ca aj ga sant borom bi subhaanahu wa taala bi mu ko sàmmee ba mu dellu siwaat toogaat ak ñun ci biir studio bi nag tuuti daañu ko jox kàddu gi daal di tàmbali ak moom waxtaan wi niñ ko baaxoo defee bu jógee ci tukki bi nga xamante ne mooy tukkib aj ak moom ci aj gi ak yi nga xam ne moo dellu seem euh, saafonte ak moom ci xaaj bu njëkk bi ba minuit di jot minuit jotee ñu yeewi ko daal di ànd ci téléphone bi ci 88 628 98 98 33 841 22 33 loolu la ñuy àndee yéen ba une heure jot ñu daal di jeexal jotaay boobu dégtal leen tafsiru quranul karim bi buñ ci noppee dégtalaat leen alkitab le programme bi ak yéen ba cinq heures jot ñu déglu alquranul karim cinq heures trente ñu déglu almisbah six jotaayu albidaaya ak jotaayu guddik àjjuma gi mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen béggee bu baax a baax di leen jaajëfal xam naa gannaaw ne naa leen Oustaz Alioune Sall ñëw na ba teew da ngeen koy daal di yàkkamtee dégg noonu itam ñu yàkkamti dalal moo tax ci moom la ñuy daal di wëlbatiku rek janoo ak moom ne ko Oustaz asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu xaaji sëriñ Mbàkke Sylla jërëjëf Oustaz ñoo ngi lay nuyu di la siyaare ci tukki bu barkeel bi nga demoon maa ngi lay fay nuyoo di la fay ziar di la jaajëfal ci taxawaay bi nga taxaw ginnaaw bi ñu demee. jërëjëf oustaz euh, oustaz kañ ngeen ñëw. maa ngi ñëw biig ñu ko wolof di waxee. Mhm. zéro heure trente lañ ak si aéroport Diass. Mhm. xaar suñuy bagage mu génn. Mhm. peut-être ay une yooyu. ñu daal di yeewi koo fa daal di ñëw kër gi biig lañ ñëw daal. tubarkalla. loolu am na solo ñu dalalaat la jàmm ci sam réew ci sa dëkk dëkk bi ñu la soppe lool. Eh, dëkk bi nga xam ne itam marqué nga fi sa empreinte ci liggéeyal l'islam ak euh, liggéeyal alquranul karim ba fu ñu tuddee sa tur ñëpp xam la ma bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu mm-hmm. maa ngi leen di suñ mbàkke mboolem ñi nga xam ñu ngi déglu ci biir réew mi ñuy déglu bitim réew ak fu waay mën a nekk ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rawatina mbokk yi nga xam ne daje nañu fële ci baytullaahil xaraam ñoom Doro Silla ñoom Xalil Kan ak ñi mel ni ñoom teñ tase fa ak ñi nga xam ne ñëw nañ fa te gisante wuñu ñoom ñëpp ñoom Siddiq ña ñu leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di sant borom bi nga xam ne moo nu may ñu lem may nu delsi hmm. lañ fa doon def yàlla na ko nangu te fullandi ko boole ñu ko ñun ñëpp ñi demoon ak ñu demut ñëpp ci xaj. macha allah jërëjëf. jërëjëf oustaz loolu am na solo nuyoo yi xam naa soppe yu baree bari fañ toog ñu ngay bég te di la fay nuyoo eh, di la namm lool naka waa madinatul munawwara. Eh, al madina ma nga fa nekk rek tabarakallahu nam nekk woon. Mm-hmm. travaux ya gaañaa nga ca. Mm-hmm. cetal ga gaañaa nga ca. Mm-hmm. alayhi salaatu salaam nga tëdd ca jàkkaam ja. bët bu set mu mel ni tey jii. dara fi xew. te xam ne daraa fa xew ndax weñ du béewu fu dara nekkut soo demee ñi ñaa ngi booxante ca raw domba hmm. ña ngay booxante ca bayna rawdatuhu rawdatihi wa min barihi hmm. nit ñaa ngi fay booxante hmm. ba léegi sax dañoo changé couleur ya au ñu bàyyi tap verte ba verte léegi lépp dañ ko la rek mu gën a yaatu daal di vertal lépp daal di vertal lépp est kon Madina nga fa rek tabaarakallaahu ak dem yaag bàq yaag ci aju yëpp tabaarakallaahu mm-hmm. def nañ ko kulu ziar dem ci barab yooyu mm-hmm. eh, di ñaan borom bi ko ca demagut yàlla na ca dem mm-hmm. ko demoon yàlla na dellu jërëjëf jërëjëf loolu am na solo oustaz Madina fekkaat ngeen fa ay soppeeku soppeeku wala na ngeen ko bàyyi woon rek noonu ngeen ko fekki waaw coppa de xam naa ca jàkka jële lay doon ndax daaw ñu nga fa bàyyi woon benn projet boobu booy dugg jàkka ja sa càmmoñ ci jullikaay jigéen ña ña nga ca woon mhm. daf nañ ren gën naa avancé doonte àggul daal mhm. waaye am na fu mu àgg foo xam ne ku ñëw nga xam ne fi nga ko bàyyi woon daaw mhm. gis nga ci coppat ren ba ci tegee coppat ci wàllu circulation bi am ci baq fi nga daan jaar booy ziar ji doo fa jaar léegi danga nga ñëw ñu défilé nga défi dévier la nga jaar ndeyjoor wala bëti ko ba sori ci digg bi jàdd càmmoñ door a mën a wuti Ousmane Affan fa mu nekk ak suñu yaay Alimatu Saadiya loolu de ay coppat la yoo xam ne moom fekk nañ ko fa sëñ Mbàkke mm-hmm. mm. am na solo loolu am solo la ca Madina ak ak aj gi eh, ak lenn ci coppat yi ak setaayu dëkk baak mm. neexaay baak <laughs> nit ñu yaru ña fa nekk waaw yokk nañu it eh, tëliya ndax xott nañ fa ay tëli mm. yéegal fa ay tali yoo xam ne fii daal circulation ba gën na faa jàppandi. Mm-hmm. waaw waaw. macha allah foofa ay Madina ba ngeen fa jógee ci ngeen dem Màkka. ba ñu fa jógee ca la dem ilaa makkatal mukarram ilaa makkatal mukarram macha allah seen séjour Médine euh, loo ñu ci mën a rappeler loo xamante ne danañu marqué lool euh, waaw xanaa gis rek ne dëkk ba daal ku fa ñëw rek xam ni fii mooy daarul xabib bi waaw ku fa da nga xam ne fii mooy daarul xabib bi ndeysaan te sëñ Mbàkke gis nga bi Alxuraan di wàcc xam nga ñaari ñaari pàcc la waaw makk yetun ak madina mhm. gis nga sooy seet aayay madiniya day gudd mm-hmm. boo ko dee seetlu dëgg la uh, nga ñëw ci madina mm. arab yi madina naar ya mm-hmm. ñoo mën a gën a jàmmanteeg arab yi mag am yitte lool am yitte lool mm-hmm. maanaam kon ci na nga def dana sa xam ne la maa ngi fi noo tudd mu wax la ko na yoonu marché mu wax la ko bu dee ca màkk nag ca saari màkk yi nga xam ne aay day gàtt ñoom it seen wax daa gàtt. waaw <laughs> waaw fan la teeree kastoor jublu ñu ne la ñu ne guddaam mu jeex. amuñu jot ñoom. déedéet guddaam mu jeex. <laughs> donc ma jinaangu noonu. ndeysaan fa lañ jóge nag daal di wuti Makka. tubarkalla uh-huh. bi ngeen agsee Makka am fa ay fan aj gi door a tàmbali yi tam noo ngeen ko fekkee moom. waaw Makka yi ña ngay toj rek. <laughs> ña ngay toj rek de. moom dama naan sax yàlla na leen jig. est-ce que. ndax saami xaaj yi jooju ñuy wax. Mm-hmm. montagne yi téye suuf si ñoom ñu toppi toj rek mhm. yàlla leen jig laay wax de mhm. ndax toj gu bari na lool waaye daal ña ngay toj rek est-ce que kaa bëgg lëkkoon ña ngay toj rek mhm. hôtel biñ dëkkoon tudde ko Jabal Omar am na jamono boobu ñëwee ay montagne ko fay fekk toj nañ ko ba maasale ko def fa ay mont ay ay hôtel yu mucc ayib moom daal ña nga toj rek. est-ce que waaw waaw. est-ce am na solo toj ga tojug yaatal euh, ba mu àgg ci foo xamante ne maanaam euh, barab yi nit war a barkeeloo wala yi fa nit ñi doon siyaare day mujj yàgg lépp mel ne day mujj dañ daal ci modernisation bi ñu nekk. ah boo demee fa ñu xaaru xiraa. Hmm. toj nga fa jëm xaw ma nag dana faa gëm déet. Hmm. ba demee jabalu nuur moom woon. Hmm. toj ga nga fa jëm. yàlla buñ fa àgg. ndax mas nañoo xalaat dindi maqaam Ibrahim. Hmm? ci fi ñuy tawaafe noonu. parce que foofu ay maqaama dafa nekkoon. waaw waaw maqaamu Ismaïl maqaamu Ibrahim. Hmm. Ismaïl. Hmm. Euh, Shafii. Abu Hanifa Imam Malik ak Hanbal. d'accord yooyu yëpp dafa nekkoon fi wër Kaaba gi. waaw soo seetloo ci fotoy Kaaba gi foto yàgg ya. waaw da nga ciy gis yooyu. dëgg la dëgg koy isaala nag dañoo dem ba nekk maqaamu Ibrahim bi ñu koy dindiwaale. nee nañu mel mel na mag ci sunu magi réew mi Cheikh Islam Haaj Ibrahima Niass ndeysaan radiyallahu taala anhu moo leen wax ne hmm. suñu dindee maqaam Ibrahima xanaa dañu dem ci aay ci alxuraan dindi ko dindi ko hmm. wa taqisu min maqaam Ibrahima ñu dindi ko allahu ñu door ko faa bàyyi ñu ne kon buñ ko dindi waaye nañ ko nañ ko àndal hmm. nañ ko àndal ndax fi ngay taxaw di tabax boo demee maqaam Ibrahima diggante ba kaaba gi il faut nga poser question waaw kon Ibrahima nu mu doon taxaw fii di waaw dëgg la ndeke dañoo taqaloo woon ñoom ñaar Kaaba gi ak Maqaam Ibrahim. Mhm. ñu teqal leen ni Maqaam Ibrahim kaay nga puus tuuti. Mhm. moo tax ñu puus ko ba foofu am espace. moo tax très bien. ba ñuy tawaaf du leen mën a sene nangam nangam. ba leen neexee tawaaf diggante maqaamu beeg. Mhm. Euh, Kaaba gi. bu leen neexee wëraale Maqaam Ibrahim. ngoog est-ce que alhamdulilah est loolu am na solo lool oustaz ci njàngat mi la bokk waaye ci ñuy seetlu foofa ca màkk la bokk ak mhm. soppeeku gi nga xam ne moo fi am mhm. noo gisee aj màkk gi nag ren bu ma bu ma boolee lépp mu nekk global noo ko gisee waaw alhamdulilah ndax réew ma koy organiser jàmbaar lañ ci wàllu googu mhm. def nañ ci yu bari defar fu mbedd yu bari waaye sécurité nit ñi sécurité sécurité boo xam ne moom it yéeme na bu ñuy julli si bu jullee ba noppi saa su nekk rek ña nga ña nga cay ci liggéey boobu kon aj gi ci wàllu googu macha allah bu dee ci wàllu sunu gosu bopp moom it noppi nañu waaye bu ñu noppee ñun ñol ñol ci sunu aj moom daf noo taq ndeysaan waaw ñol ñol ci sunu aj daf noo taq mm-hmm. ndax euh, ujaaj yi léeg-léeg dañuy manqué ay communication yu leen di jox léeg-léeg xam nga comme état bi day day day organiser bu bi organiser euh, dañuy wax ni mbërum buur baa doolu du ko téq da koy ragal waaw bu ñuy dem dañu nañu war na ngeen fay nangam ndax ngeen am ay saak uhuh. ñu fay loola ba noppi amuñu ko mm. loolu ah loolu de leneen waaw da ngeen di fay ay saak. ñu fay saak ba noppi amuñu ko. te am nañu am. loolu mooy maanaam privé yi nga xam ne seen xaaj bi doon dem ci falay naa waaw. ñu jox leen lool ñu jox ñu xañ leen ko te jox leen ko. Euh, ndawi buur. donc yooyu. feeñ na ca. Euh, mun naa gën nga xam ne fa la ñuy yendu te at mu jot mu am problème mu lekk. it da koy am. dama xamul ñun ñoo naan naar yi du nii walla déet waaye daal doy na kéemaan léeg-léeg daal ñu dem fa heure bi ñu ne añi ñëwaguñ loolu nag xam nga moom boo koy def ndaw ko léegi tey nga dugal ko ci yu métti bi ku li ma anal kalima it aj gi am na ren ay taw yu bari ndax arafa taw baanu dàq naka noonu mun a taw baanu dàq waaw nose nañ ko nag nañ ko war a defee ñoom ñoo koy def góor góorlu ca lool ndax léeg-léeg nga dégg ko ne nañ nationaliser aj gi wala internationaliser waaw waaw waaye su boobaa buñ ko defoon boo moytul am na ci réew yoo xam ne buñ leen laajee cotisation bu aj gi yaakaaree cotisation ya am at dana am kenn du aji waaw dëgg la moo tax ñee daal expérience bañ ci am ña nga ciy góor ña nga ciy góorgóorlu fu ñu def embouteillage bu déwénee boo ñëwee fekk ñu tëli ko. boo ñëwee fekk ñu tëli ko macha allah. Mm-hmm. danga nga cee góorgóorlu kon di ci jàmbaar di ci def seen kamtalaay kàttan yëpp. Mm-hmm. nit ñi nag gën a bëgg aj rek. di gën di mm-hmm. fonk muy gën di neex ñoom. wallaay wallaay wallaay loolu mm. am na solo oustaz suñu réewum bopp ak organisation daa mel ne moom du jóg ci coow. maa ngi dégg ay wax ak i audio yoo xamante am na ci yoo xam ne sax suñu mbokk ma ne ci seen TV Mansour Diop mi ngi ko ci doon jàngat. di jàngataale loolu nga wax noonu te mooy maanaam saak yooyu ñuy wax. ak itam euh, li ñuy teg ci privé bi. Mhm. Euh, ci wàllu euh, seen xaaju pèlerin yi faw mu ñëw jaar fa lay naaf. Mhm. te nee na buñ bàyyi woon ak privé bi ak boppam diggante daal billet bi ñuy dagg bu doon jaaruñu foofa moo xam émérite lañ jël wala ñu jël turquise wala ñu jël éthiopian buñ jaaree fee dañuy danañ ci tegaat lu ma trois cent mille francs yoo xam ne danañ ci tegu te manqué manqué ya bari lool loolu man jàngan nga. waaw wax na dëgg. Mhm. wax na dëgg ndax regroupement. sañ ngaa dem boo amul nangam sañoo dem par exemple ñu ne suñ mbàkk si la day organiser ñu ne ko foog nga am juróom fukki ujaaj suñ mbàkk am téeméer léegi lu xew mooy war nga mën a dem ñu la nag boo amee téeméer da ngay boote bu la neexee bu la naqaree da ngay boote ki ngay boot duñ la ci jox dara déedéet duñ la jox biir duñ la ci may leen waaye te neex naqar da ko boot Mm-hmm. ñu noppi ca daan ne la avion bii bu la neex ak bu la naqaree mm-hmm. sa juróom fukki ujaaj bi ci téeméer bi mm-hmm. fii la ñuy dem bii ba la neex lañ say teg wax la it ne saoudien ñooy laaj taxe communale te sëñ Mbàkke taxe communale lu ci yoonu ab ujaaj fekk noonu lañ koy waxee ab ujaaj yoonu mu ko ci loolu waaw donc yëf yi ay mbir a noonu yoo xam ne am na ci Eh, te itam toog ñu ne yéen ñi yéenay ujaaj ji hmm. war a dem ci avion bii hmm. avion bi nee na kenn du dugal ci avion bi ku dul ab saagam hmm. ñu ne kon daañ leen jox ku nekk ñaari saag ak bu ndaw bi ngay nàbb bu dul bu dugg ci avion bi nga ñëw toog ñu daañu paate paate ñëw ñu jox ko saag yow nga toog di xoolee <laughs> kenn mësa gis loolu waaw te lim fay nga fay ci billet avion bi muy jël moom ngay jël dem ak dikk loolu metti na lool. waaw la ci tege mooy su fekkee avion bi dañ ne la neex na moom ngay jël. ñu jël ko mu mel ni ab ab ab ab njaga nga dugg ci avion bi yëg ni avion bii njaga njaay dëgg la. waaw <laughs> du tànneef ci avion yi. boo xasee dugg toog doo am benn information. doo xam kañ nga départ. doo xam foo tol maa mi ngi wut ak jamono comme ni avion yi. ñu lay yooyu mi ngi wut ak jamono. waa gépp na xaj nañ ci. waaye mi ngi moom waaye amul dara. kepp. est-ce que waaw. est-ce que boo toogee banque say tànk waaw. est-ce que. daal mu ngi noonu rek. est-ce que yàlla na ah, yàlla yërëm. doy na waar lool man nag loolu dégg nañ fa nag ci weeru bay ñu ne. Hmm. sunu digganteeg ak Saudia. Hmm. Air Saudia. Hmm. ay tànk ña ngi ko cay dox. moom bu sottee bañ joxaat nu ko. xanaa tol toñ toñal gii ñuy def dana dana ta dana tane. dëgg dëgg la jóge fi ñu la foog nga jaari Dubaay. ñee ñu lay nga jaari Éthiopie ñee ñu lay fekk nga jaari mm. France nga xam ne compagnie gi li jël fokk mu yóbbalam door dóor laa yóbbu màkk mm, loolu ku ne méttiwut mm. da nga caa jaarut wallaay wallaay yombut dara hmm? yombut ñun aj gi yombut ci ñun dara oustaz xam naa bu ñu amul suñu avion yi boppit daa mel nag war nañoo mën a euh, mën a war a mën a gën a mën a organiser nag damaa xamul fan la problème bi nekk waaw en tout cas 1960 hmm. aj gi jiitu na ko hmm. aj gi jiitu na ko ba fii nu toog ñu ngi amee problème. Mm-hmm. léegi nag quest mm-hmm. ndax dañ koy yaatulul woo ci ñi ko organise mm-hmm. ndax dañ koy yaatulul dugal leen ci ñoom ñëpp. lu xew lu xew lu xew question yaa ngi noonu. dëgg la léegi bu ñu ko privatisé woon. jële ko ci loxo yi nguur gi. mu seetaan. dëgg la mu cahier de doléance. ku bëgg organiser mu wan la lim bëgg. ku ko defut mu nangu sa agrément ndax nun wutum xaalis mi def cee bari waaw xeetu business bi ci biir xeetu bu métti sax léegi nag su ci xasee nekk ngay businessal état may businessal sama bopp ñu ñaar bu ñu bokkee taxaw rek ba muy tudd kee jël li nga xam ne moom moom laa moom laa yeyoo loolu rek mooy ci yëf yi la bokk dëgg la moo tax ñol ñol jeg yooyu di di ci nekk saa su nekk waaye daal business bi métti ci lool. Mhm. Mhm. loolu am na solo oustaz jërëjëf ci euh, jafe-jafe yooyu nga xamante ne ñi ngi jànkonte ak moom xam naa danañ ci gën a dellu siwaat ci mhm. wàllu aj ndax euh, dëgg dëgg nag loo xam ne at mu jot ñu def ko. te mm, mën nañoo wax ne bëggoon nañ mu gën a wàññeeku ba ñu wàññi woon li état am. Eh, ci pèlerin yi jox ko privé yi mm-hmm. dindi li fi nekkoon def ko léegi mu nekk délégation mm-hmm. noonu ñu ko tuddee mm-hmm. maanaam lu baree bare am ci ak milliards yi nga xam ne moo ciy dugg bari na daal baaraam yi ñu leen di joxoñ yoo xam ne ak góorgóorlu war na cee gën a am ci bii ak yi ko jiitu yëpp waaw dëgg la de eh, ginnaaw loolu nag eh, nekkinu sénégalais yi foofa ca Makka ku fa jógee ku ne faaw léeg-léeg ñu waxtaane ko ca mun na arafa ak yi nga xam ne moo ci aju loolaat nu ngeen ko jàngate ren jërëjëf. dafa am aji màkk ak dem màkk. waaw nogay moom daa demoon màkk aji wutoon. Hmm. <laughs> nogay. Hmm. dafa demoon màkk waaye aji wutoon. aji wutoon lan moo wutale aj màkk ak dem màkk. suñ màkk ki aji màkk. Hmm. yaramam day yëg ne dafa aji. ay jikkoom da koy yëg. ay jëflanteem da koy yëg. ki dem màkk nag moom dafa dem rek. moom avant Makka pendant Makka et après Makka égal lui-même. Hmm. toujours ki mu doonoon rek la. rek <laughs> nga mën koo fekk mu nekk ci Makka di saaga. Hmm. dugg ci avion bi di ñibbisi di saaga. Hmm. wàcc aéroport di saaga. kooku da nga naan. ki demoon Makka daa waaye ajiwu doon Makka. ndax yëg-yëg ya fa nekk bu ko nit yëgee. mu dem ci yaramam dem ci deretam mhm. dem ci xelam ak xalaatam suñu bisee mbokkam yëpp daañu xam ne kii daa ji woon mhm. la ku ci nekku nañu xam ne kii dafa demoon makk mhm. dafa naa nett loolu naa la muus ak dem nga màkkam wallaay wallaay mu jeex tàkk loolu daal moo ci nekk bool boo léeg-léeg ñëw mun a gis fa kook musóor ga ca mbagg ma la koy teg boobu ba nopp yéen ci bitti baat ba ni ci bitti lépp boo seegu ne ko soxna si mu ne baal ma musóor gaawaat woyofal ko quoi woyofal ko donc yooyu ma nga ca mhm. euh, ujaaj yi yàlla na yàlla nangul ñëpp nag waaye daal loolu sunu mbokkum daara sëñ Fallou bu sëñ di wax yàlla de ku bëri la mhm. ñu ne ko waaw mhm. mu ne waaye ndékki ba noppi di woor moom koor ga du wér yàlla na ko bëri yërmande la ma ne ko lay wax nga dëgg. dëgg la dëgg la loolu tam mooy ci am. sëñ Mbacke macha allah loolu am na solo oustaz jërëjëf ñu ndokkee leen ci aj googu di aju deux mille dix neuf. Mhm. dellu si na nag ci réew mi réew mi nga xam ne <laughs> fi ngeen bàyyi ko woon dem nan ngeen fekkaate Sénégal ak nan ngeen ko doon déggee foofa sax ba ngeen fa nekkee. moom day dégg bi ñu ci gën a. Mm. Euh, xaw a kii day. Mm. mooy déggub tabaski ren. Mm. waaw tabaski ren. waaw lu ci xew loo ngeen ci dégg. liñ ci dégg mooy masalam xilaaf moo xam ne ñenn ña ñeme nañoo takk takfiir ñenn ña nekkul ci xalaat bañ nekk masalam xilaaf kenn def masalam xilaaf jàpp ne lii ma def ku ko defut baaxu wala bokkoo d'accord coow li nag nekkul audio yi di dal fu ne ñu dugg fa loolu moom metti na lool est-ce que est hmm. bu ñu nee tey tabaski la hmm. ma tabaski tabaski woo. pourquoi may am ak yow problème. Ah, waaw jëru ko woon de. man ma tey la tabaski. loolu lañ wax. ma tabaski tey ci sa nga tabaski. man du tax ma jàppale daa. Ah, waaw mais Oustaz est jotul nag yéen itam ngeen toog ci taabal waxtaane wàllu tabaski gi. Ah, ak li nga xamante ne mooy arafa. man de ñi ma bëgg bu ñu ma bu ñu ma wéysee incha allah. Hmm. bëgg naa cee am ab jataay. Hmm. bëgg naa ci amal ab jataay. Hmm. woo ci boroom xam-xam yooyu ci wàllu googu ñu waxtaan ci dëgg dëgg ndax ñaari masala yoo xam ne bokkuñu buñ ko toppee ba ba addunuy tukki duñ defandoo mukk dëgg la bu fekkee dañu bëgg a defandoo fokk ñu toog fokk ñu toog waxtaan waaw effectivement bu ñu toogee tànn benn ginnaaw état bi ne ne dafa lay mm. mën naa am du ci jàpp mm. mais bu ci jàpp nit nit ñi nga xam na ñoo ne ci diine ji ñu toog waxtaan. dëgg la buñ ci toogee ba waxtaan ba dëppoo ci dara dana leen jàppale ca loola. te jàpp ne kaay ñu kaay ñu nekk benn bokkut ak kaay ñu ànd. Mm-hmm. waaw. jàmm na ñooy waaye li fi defuñu ko duñ defandoo mukk. Mm-hmm. tey defandoo gi sam na xorom lool. Mm-hmm. waaw euh, arafa jàpp ne tey la arafa ëllëg sa tabaski la. Mm. loolu sentiment la. Hmm. waaw. sentiment la oustaz. déedéet waaw bien sûr. arafa nekkul neuvième jour ci weeru tabaski. arafa mooy neuvième jour ci weeru tabaski. waaw léegi tabaski war a nekk dixième jour. Euh, déet tabaski nekk dixième jour ca weer ba bis bañ ko gisee ca ñoom. Hmm. loolu borom xam-xam wax nañ ci ba ba teg ko ci barab. <laughs> foofu am na sew si am na am na mu lëntu. oustaz daa mel ni très bien léegi arafa. Eh, dafa am place bu ñu koy defee ca Makka. daa nekk waaw daa nekkul lu automatique. nekkul lu automatique déedéet. Hmm. ñu ne tey laa arafa ci ëllëg su may tabaski. nekku demewut noonu loolu sentiment la. Hmm. bu yàggut rek la tàmbalee xam sax. Hmm. tey daal la arafa. nañ taxaw arafa nañ war arafa kañ la ñuy tabaski. <laughs> léegi bu ñuy taxaw bu bu ñuy taxaw arafa man ma nekk Sénégal damay woor bisu arafa. bis bi ngeen di taxaw laay woor bis ba ñuy taxaw moom ngay woor. léegi nag ci ëllëg sa euh, mu nekk bisu tabaski ma bañ voilà mu ngoog dañ dañ laa obligé wut ne la boo taxawee arafa bu ëllëg saa tabaskil. Hmm. Mhm. xanaa ci ëllëg sa dërul fukkeelu fan ci weer wi. parce que suñ <coughs> bàkkee. Hmm. léeg-léeg ñu taxaw arafa bis bopp. Hmm. du neuvième jour. kon bis booba du arafa dañ caa juum. léegi nag mais du te comme ñoom dëppoo nañ ne tey la arafa ña nga taxaw arafa da ngay woor. ñoom dañuy séntu weer yi ba gis ko jàpp ne bis bi mooy arafa wala arafa dañ koy jàpp rek. léeg-léeg buur bi jàpp léeg-léeg ñu séntu. ah waaw loolu de bu xasee am moom dana xaw a soogi ñaagaat te ñoom ci seen séentu dañoo dëppoo ci. wala lañ gën ci lëng la ñuy def. Mhm. mooy ixtilaaful mataali hmm. maanaam Sénégal du si gis weer yu mukk ñu daal di ci baase wu ñu baase ci taxaw arafa mm-hmm. mukk mm-hmm. loolu ay yëfi mm-hmm. dégg naa ci ay ay wax jataay yu am solo yu ma ci dégg ci ay boromi xam yu ma ci jiitu wax ci lu am solo ci wàllu googu ñu leen ci ndokkeel baax a baax euh, euh, sa sàll ci la bokk euh, ma nga fële ca parcelle oustaz Njóogu Sàmb ca la bokk mm-hmm. mu ngi ci jamaatu bi Abdourahman mm-hmm. def nañ ci ay mm. yëf yu am am solo ci wàllu googu dafa mel ne oustaz kon problème bi dana gën a dana gën a compliqué dana gën a yeexa rek la bët bu set kay ndax itam nag am na ñooñ moom liñ jàpp mooy arafa buñ ko taxawee mooy neuvième jour ci sa nekk dixième jour moom dañoo war loolu mooy tawxiidul mataali loolu mooy tawxiidul mataali ku mm. gëm loolu kon fi nga ko gëm am na foo ko teg waaw mm. mais nag jafeñ-jafeñ bi mooy ndax ixtilaaful mataali gënta gën a yaatu ci pénc mi ci def ko tawxiid hmm. waaw loolu tam leneen la actuellement nii hmm. yaa ngi ci vingt trois heures hmm. nga defe ne ban heure la màkk nekk waaw xaw na faa gën a kii de waaw ñoom ñoo ngi ci beneen heure kay fi boo nekk ci onze heures da nga teg minuit waaw fi mu ne une heure ni deux heures ñoom ñu ngi ci deux heures cinq ñu ngi ci deux heures cinq vingt trois heures cinq ñu ngi ci deux heures cinq ñu kon bu subaa ñoo ñuy njëkk dugg ci bëccëg bi Mhm. jamono ji ñuy séentu aw weer moom sëñ Mbàkke kon ñun fan lañ toll mhm. ndax kon mënuñu koo séentu ba gis ko mu suux mhm. ndax munuñu koo séentu ñoom gisuñu ko ñun ñu ñëw jamono ji ñu demee ñoom trois heures de temps ñun ñu gis ko ñun mais dafa mel ne ñun ñëpp ñoo bokk bis bi ay waxtu lañu rawantee rek te buñ ne leen gis nañ ko waaw ñoo bokk bis bi mais nga fuseau horaire day xam-xam bu doy waar mooy jamono ji arabu saoudi di nekk ci dix neuf di séntu weer mm-hmm. ñun ci war heure lañ nekk bi ñuy agsi ci heure boobu ndax ndax weer yi mën naa des ci asamaan si bañ koy gis ah, wala déet waaw mm. te yonent bi alayhi salaam sëñ Mbàkke mm-hmm. fa in xumma xam nga lu muy tekki lu muy tekki ustaas mooy weeraan fi may gisu leen ko mm-hmm. waaw waaw fa in xumma fa in xumma aleykum waaw fa akmilu iddata salaasin maanaam bu fekkee gisu leen weer yi matale leen waaw xumma waaw mooy kon mi ngi fi mhm. xamaam yee ko muur rek dëgg la mais daf mel ne scientifique yi dañuy wax ne weer yi mës a jóg ci asamaan si waaw ba tey waaw léegi bu ñu séentoo fa in xumma jooju ñan la ndax day daal di nekk jullit yëpp wala ndax bu ko Mali gisee day yóbbaale Sénégal bu ko bu ko bu ko France gisee ndax day yóbbaale Sénégal bu ko Arabie Saoudite gisee ndax day yóbbaale Sénégal Abdoulaye ibn Abbas daf cee jàngale lu am solo hmm. ci addisu Kurey booba hmm. Abdoulaye Abdoulaye Ibn Abbas naam lu am solo la ci jàngale ñiy def ixtilaafu mataali addis boobu la ñuy jël ñi def tawxiidul mataali danañ koy jam danañ jam addis boobu mu ngi ci téere yi nag ñu ne dañ ñu ne kuréy ba dafa dem cib dëkk Sham waaw la ku kumte la fekk waaye koor gi bi muy laata jeex ñibbisi na Madina mhm. ba mu ibnu abbas xam nga jullit ñaare fu ñu waxtaan rek waxtaan wa ca diina lay daanu ji mhm. lu ñu togg mu saf ko dëgg la ibnu abbas di waxtaan moom ba agsi ci koor gi agsi na ko ay yéen kañ ngeen um kañ ngeen um mhm. mu ne ko weer wi dee alxames ca ngoon lañ ko gis ba siddi ajjuma ñu um mhm. waaw mu ne ko waa leen góor ñun dey ñun àjjuma ci ngoon lañ ko gis ba seddu samedi ñu um xam nga la ma ci ragal dañuy woor nag ba am fanweer mbaa ñu gis ko korey bu jaxle ne ko yow mu awiye mooy amirul muminina mu ne ko waaw mais ñun lii la ñu doon tib jàngal loolu ñu ne tey taw ixtilaaful mataali dañuy dellu ci addis boobu d'accord ñi ko ñi nga xam ne duñ ca dellu dañuy jam addis bi xëy na ñoom Cheikh Ahmad Tidiane ñoom ñu jàngoon loolu <laughs> daañ ci mën a ifta lu gën a yaatu am na solo oustaz jërëjëf loolu lu yaatu la euh, bi ngeen jotee waxtaan woowu kon foofa daal am ngeen ca lool lu leen jaaxal tegtale ne mbir la moo xam ne war nañ koo jël au sérieux mmh. gën cee waxtaan lu ko mooy day gën di ñagaloo di gën di métti ndax am réew ñi ko bokk bu ñépp nekkee jullit ñii dañuy nekk ñu lu jàmbaar ñi nekk ñu jàmbaare wut. bul jàppe sa bopp ñu jàmbaare mukk nag suñu mbàkke. dëgg la dëgg la jàppal ci ñi des lu bari. yi mhm. nga xam ne mën nañ cee waxtaan dëppoo ci ñu waxtaan ci dëppoo ci yaatu dënn. yi mhm. nga xam ne dañ koy gëm ñu ànd gëm ko. yi mhm. nga xam ne mutashaabihaat la. ñu waxtaan ca. dëgg la jàmm ne ñooy. dëgg la waaye nii xew ni bu xewaatee xewaat. bu fekkee kàddu yu soppeekul changé wul. loolu mën naa jur nit ne ak yow. waaw dëgg la de. waaw dëgg la de dëgg la de. loolu rek mun ci tiital nag du leneen. dëgg la ndax menn réew la mu xat waaye ca dimanche ja bari na ñu julli lool lool lool waaw ca altine ja itam. bariwaat ñu julli kadalik waaw ñu ëpp door a julli te loolu itam moo amoon ca koor ga moo amoon ca kori ga moo am ci tabaski kii jeex na bis bu ñu la jàppee nag suñu mbàkk si bi nga defa baaxut. Mhm. commentaire boobu du baax. waaw gis nga masalam xilaaf hmm. ay bala fee jeex saaba yi masa ñoo àndub xare hmm. ñii woor ñii di lekk hmm. waaw lu tax loolu ah ñii sañ nañoo ñàkk woor waaw ñii sañ nañoo woor waaw kum neex woor kum neex bañ a woor jeex maye nañ ñaar yëpp kero ba yonent bi alayhi salaam doxal ñoom ba mu yàgg may leen eh a ah, ci waax leen waay bu fi kenn julli tax ak gu jam ñaaj ñenn ñu ne am nuñ ko dégg am ñoo xam ne kër Mbay Fall lañ toll daal julli ca des àgg ba jam ñaaju amuñu problème mu ngi ci téere yu bari ba ba de lu lu bëree ni ci téere bi te mel noonu buñ ci dëppooxee rek jàmm nañ ñooy waaw te bañ ci euh, exagéré ak wax ci yeneen yi ndax yooyu su boobaa defar ga du bari dëgg la te penc mi dañu war a defaroo ñun ñëpp wóolante ñun ñëpp bëggante suñu xol yi ñu bañ cee def benn xeq du pour kenn ndax noo koy jàngalekat nun jàngalekat yi dëgg la dëgg la kon wuute ji ci pas maanaam ci masala yi wërta indi wuute ci xol yi lu ko waaw bu ko ci indee rek tàmbalee yàq bu ko ci indee rek tàmbalee yàq dana war a fexe ba duñ ko ci indi dëgg la sëñ Mbàkke dëkk may ñu demoon muy Màkka mm. taalibe yonent bi rek ñoo fa daje woon. wa salaam. waaye lu na ngay gis nag. laaj ko ujaaji. Mhm. da ngay gis ku ñëw julli suba sëlmal kàbbar. Mhm. ki dëkk Sénégal ne ñëw na la waaw kii li muy def na. Mhm. gis ku julli tàkkusaan sëlmal kàbbar. naka sa kadaalika noonu. dëgg nga ñëw docteur Abdoulaye Lam kii li muy def nag mooy laa. mbir yee yaatu rek. waaw mbir yee yaatu rek. mbir yee yaatu rek kon oustaz su ma ne woon dafa mel ne kon diine ji ci boppam xam ban baat laa war a jëfandikoo sax ndax kon naa wax déggin wi déggin wi ñu ci dégg xanaa moo am problème wala problème bi fan la nekk ba nga xam ne daa mel ne daal booy dem. xam nga dañ naan leer na te buñ doxalee tuuti mu ne daa leerul. xam nga saa boo hmm. ma ne la ñun dañuy ay jullit yoo xam ne. Hmm. tubaab nu jàngal. Hmm. moo nu wax ni nu war a mel. la ca màcc ci diini ji moonu ko ca mosal su boobaa dañuy dem ci déggin wax nañu jàpp ne diini ji ku màgg man faatee ko màgg man nodd ko màgg man fekk ne dañ ko war a jàng suñu diine dañ ko war a jàng ñun ñëpp dëgg la dëgg yi daa waroon a jàngale diine bu ko defee jikko yi ñuy coow ci penc meeg ñol ñol ji wàññeeku suñ mbàkkee alxuraan juy dox ci kaw suuf. Hmm. am na comportement yu ba xam yoo xam ne mënu koo def. dëgg la dëgg la loolu ci ay gàkk gàkk la yu métti yi nga xam ne moo ñuy dal. Hmm. ndeysaan am na solo jërëjëf foofee ngeen nekkoon ca aj ga ba ñibbisi waat Sénégal ma xëy na ba ngeen fa nekkee di déglu senegal lii moom bokk na ci li la gën a e, gënoon a marqué mhm. bi ngeen waajee bay dem itam ci la suñ mbokkum daara ma oustaz e, Tayib Socé e, moom itam nattoom ba jeexagul woon mu daal di wuy jiwaat mhm. fële ca yoon ba caabi wéy di ko féete ginnaaw ba léegi mhm. yéen a ngi doon jot ci information yi yéen a ngi ci dégg itam boobaak léegi moom itam nu ngeen ko jàngate jërëjëf yàlla na na loxo teggeeku ko amiin yàlla ne pénc mu yëg te am yëg-yëgu yëg ne daa war génn fee mu nekk amiin yaa rabbal alamin ndax eh, ku dul ku dul fen hmm. fen ko day yomb hmm. dëgg la ku dul naxe nax la day yomb hmm. dëgg la waaw dëgg la kon kaay ma jox la nàngam wala boo defee nàngam am nàngam lépp li day égal nàngam nga dugg ca dafay yomb am na suñ mbokkum ustaas moo xam ne dañ ne ko mën ngaa am ci barab sàngam juróom-ñaari million yoo defare sa daar ji mu ne loolu kay baax na jël këyit yëpp jox gaaya ñu dem jël juróom-ñaar fukki million jël ko ci wuturam waaw dem def pere ci wuturam ci këyit yi mu leen jox waaw allahu léegi <laughs> ñoo ko defoon ne fes mm-hmm. léegi moom lañ war a topp nag pour mu fay war boobu mm-hmm. mbaa ñu jël daa école baag yëpp jaay ko mm-hmm. toog jàpp seen njàmbur mu toog jàpp njàmburam mm-hmm. oustaz bi ñuy nekk ci bëgg a dem dese ñaari fan ak ñett nga xam takk nañ suñuy bagage lañ yëg ne dellu na prison ba suñu fekkoon nag lañ ne moo war na jaar ci loxoom dem ci loxoy sàngam moo tax mu toog fee dama ko ëmb ci mbuus rek yët yët leen ko mm-hmm. waaw bu sama oto bi doon jar loolu it mm-hmm. suba laa koy jaay mm-hmm. li ci des nag noo ngi ciy dox suñuy tànk incha allah bu ñu fa demul suba lu topp ci suba daanu fa dem incha allah waxtaan ak moom waxtaan ak penc yi sunu mbokk Iran Ndaw mu ngi ci taxu jéegu yu am solo ak ñoom waa jamra jaakaar naa ñeneen dañ leen ci fekk si incha allah loolu daal sëñ Mbàkke métti na penc mi lool métti daara ji du du loo fab du loo jël du loo ko loo nax kenn ay gaay doon naxante jaar ci yow waaw rekk tabarkàlla mu dikk la yu mel nii yàlla teggi ko loxo yal na caabi ji ubbeeku mu dem ñibbi waaye yàlla ne pénc mi dégg nag liggéey biñ ci war a liggéey pour mu dellu këram ñibbi macha allah ñoo koy masa bu baax a baax a baax hmm, jërëjëf jërëjëf oustaz jërëjëf ci moom moomu nga ci def daw na yaram lool te itam eh, ñi bokk teen ñooy laxasooy goj te itam ñoom rek ñoo war a jàppalante ci seen biir itam allah ndax àdduna bi noon la bindee kenn ku nekk ña ngay jàppalante ci kuréel yi ñu nekk mhm. rawatina nag ñi nga xam ne ñoo féetewoo yàlla nee na yonent bi nee na allah léeg-léeg euh, ku xam ni mbir yi di xam ne man nit ku ne mën naa juum ci xeeti njuumte yu mel nii te du doon njuumteel boppam dana jare jàppale bu boobaa dëgg la jërëjëf mbokk yi nag tàmbali woon nañoo bay waar wi defe naa ajjuma ji rek ñi ngi daje woon fële ca institut islamique mhm. euh, tàmbalee dajale bay joxe ay numéro compte ak yoo xam ne mi ngi ci aju mhm. yooyu yëpp itam lu ñu lu ñu door ci liggéey bi rek incha allah incha allah kanam lay jëm soob yàlla incha allah ñu ci xalaata taxaw itam jéego yu mel noonu ci mhm. kàttanu borom bi amin yal na yàlla mot yëpp. amin ci sa ginnaaw itam dégg ngeen mbir ma xew fële ca pharmacie Gigon. Hmm. Euh, ba ñu wax ne dañ fa licencié ñaari doctor <laughs> docteur Ba ak docteur jum te li ko waral mooy xam naa mbirum julleeg ya ca aju donte léeg-léeg mu nekk mbir mu naqaree waxtaane ndax version yi ci ñëw dafa bari hmm. waaye bi ci gën a officiel daal mooy ñoom toog nañ ak ñenn ci imaam yi ak ay avocat gaaral lu mel noonu. man loolu si Mbàkke hmm. dama ci tiit tiit tiit ba am ci deux jours yu maa ñut looy tiit noonu Oustaz. réewum Sénégal gii. Eh. ñu am fi problème da fi jullee doo fi jullee. kii man la de. non c'est extraordinaire. Ah ah gis nga sunu sunu yalwaan yàlla yi këpp. Hmm. loolu dong la. <laughs> yalwaan yéen la yàlla yi këpp noonu. ah ba ñuy ba ñuy d'Afrique. waaw waaw ndeysaan dem nañ ba seen ko de. yalwaan ja këpp. <laughs> démb bi jànq ji di basket. ndeysaan. ah. waaw. kere bi leen Nigéria di kii dafa mel nii. Mhm. seetalal. Mhm. yalwaan ji këpp. wallaay wallaay. yu bare bare bare mi ngi xaw ci pénc mi yooyu rek a koy waral. Mhm. dëgg la. te kat fooy liggéey fi ne may la pause naan café. may la pause dem ci toilette. waaw duñ la may pause nag dem. joxe ñaari ràkk ñeenti rakka ñëw ci liggéey bi ñu xañ la ko mel ni yàlla moom muumatul jaam yi muumatul kaw suuf si àdduna ngi bëgg a tukki fii wallaay wallaay te ba bu set ñuy nafaraka jàng ak wàcc kamil wa waaw nga am maam mel ni Cheikh Al Hadj Malick sëñ mm. feeñ jamono ba jóg fii benn yoon lañ ne la masa wuute kàbbarub armal ca jàkka ja ndax seetu masa la nga am maam ju mel noonu ne cim réew ñu la fii doom doo fi jullee ah nga am maam ju bañ waxtu jaral ko wàcc ci ci géej ah, ba noppi nag bu ñu kenn ne ne na nga yaa rabbi ne bu bu lu ba leen ñu jaaxal. est-ce que waaw. ci wan weer lañ nekk. <laughs> fi mu nekk ci weeru tabaski bu dee ci weer wee septembre. ñu ngi ci ut waaw août août waaw août man kat maa ngi dem ut léegi luñ daan wax ci wolof. wax set ak pooso. waaw surtout mbarak mbool. ndeysaan. wax set ak pooso. surtout mbarak mbool surtout mbarak mbool. wallaay ndeysaan loolu de daan am. waaw loolu de daan am. léegi wax set jeex na. ana mbool ana ana ana. poose ya ñu toll ci ceeboo ñu toll ci ceeboo ko ji. dëgg la de. surtout mbaram mbool. Hmm. septembre bi dinañ ci boolu mbool. ah déedéet kii maanaam dëgg lay doon de. léegi duñ xool yooyu yooyu lañ def yàlla moom moom ba tax mu ñuy def yii. Hmm. yu mel nii rek la. Hmm. julli nag jar nañu dàq la. mu muuru. góor ñi di jar nañu dàq la. waaw kon wëree suta mën a xool oustaz ki doon liggéey ci barab bi ñu ne heure bi heure julli la maanaam tisbaar ji mu mu puus ko ba heure ba muy jël poos wala mu puus ko ba heure ba mu wàcc door a julli te bañ a bàyyi liggéey bi di julli ci déedéet kon su boobaa mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi woyofal lu woyofut daa war a bàyyi liggéey bi dem julli ji mu jaral ko mu bàyyi liggéey bi bi sëriñ bi nekkee ci géej gi hmm. loolu amoon na ngànt di hmm. ginnaaw gaal gi nee nañ ko doo ci julli hmm. ndax soo jullee tooñ waxtu yu jot na ko am ngànt nooy def. am ngànt rek. ba bàyyi ba ngànt la teggeeku. bàyyi ba ngànt la teggeeku. Mhm. waaye nag déedéet. kon fi ngay liggéey waxtu wi jot dangay dem julli ji. Mhm. nañ la dàq. Mhm. waaye cey ka la dàq ak ñi la dàq. sëñ Bakke. pharmacie bi ñu demee ci jamono ba ñu yëg na ñu ngi indi ay garab yu baaxul. ñu ngi jaay garab yi ci mbedd mi. ñu ngi def nangam ñuy dajaloo di jéem a dindi loolu. bu ñu indee lii rek ba moytu lee mën naa su lekkuwaat. sunu borom daa am lu moom. moom dog nga ko moom. nañ ko ko bàyyee nañ ko ko bàyyee. dëgg la dafa am lu moom ci jaam yi. waaye nun jaam yi nañ yëg ni foo mën a nekk loo mën a nekk. la jaral dàq rek. Mm. man de mas naa waxtaan ak sunu directeur ba benn baas Diagne. Mm. Mm. waaw. yal na ko yàlla yokk yërmande daañu waxtaan lu bari ndeysaan mu ne ma yëg nga dinaa la dàq <laughs> ca waxtaan wa ndeysaan peut-être daf may tooñ peut-être mm-hmm. na ko ndax lan mm-hmm. gis nga eh, directeur mu ne am ah, na ma ne ko soo ma dàqee mm-hmm. ñaar rek ma ne am sama wërsëg yokk te lii la yàlla jox nga di ma ko jox du la ko joxati su ma demee ci beneen rajo ñooñu la ko jox ñu ma koy jox dafa jóg jox ma loxo ne ma yàlla xam na ne wax nga dëgg dëgg la de dëgg la hmm? dëgg la nit moom kenn yorul wërsëgam. di aw ah, kay. Mm-hmm. yàlla gàllu ko ci kenn. yàlla war jàggal wa ma min daabatin fi ardi mm-hmm. illa ala llaahi rizquha mm-hmm. xam nga rab yi ku ci gën a yéex mm. kàkkatar kàkkatar waaw mi ngi añ ak reer rek a ndékki dëgg gën a gaaw ci rab yi du jël wërsëgam de de <laughs> mu ki gën a gaaw ci rab yi du jël wërsëgam mm. kee nga añaka reer ndékki kii di añaka reer ak a ndékki est yàlla noppi na bis boo nekkee fen di fa liggéey mm-hmm. jàpp ne bu ñu la dàqee nga tumuranke ak njaboot mm-hmm. gis nga xalaat boobu ngay xalaat moo baaxul mm-hmm. lan moo ci war a nekk taxawaayu jullit yi bu dee nag version bii ñuy waxtaane mooy bi wér nga xamante ne noonu rek la demee bañ dàq leen li tax ma wax loolu mooy comme version yi ñu ciy joxe daa bari ñu traité bii bu dee looloo am lan moo ci war a doon taxawaay loolu tuddee code du travail syndicaliste yeeg yooyu ñu jóg xam ñun ñëpp ak jullit yi yëg ne nit ki daa am sañ-sañu jaamu boroomam gu ñu tuddee julli daf ko am sañ-sañ julli ji ñëw continuer sa liggéey gis nga sëñ Mbàkke bu ñu xamal li ne si julli ak ñu xam li xëy ci entreprise xëyal lañ jàpp mm-hmm. bilaay kon ñu xam ne yëf yi dundoon xëy liggéeyi xëyalem jàpp. xëyalem jàpp buñ ko xam bu xamoon bu ñu xamoon li ci nekk. Mm-hmm. aw yiw bu bëree ci nekk. léegi nag ne ci barab ba julli jot nga julli beneen yiw la encore. Mm-hmm. gis nga màkk soo masaan dégg allahu akbar ñu li mm-hmm. naar bi day fab aw sagar rek muur ca njaay ma dem julli ji dëkk baa ngay dox rek. ma ngay avancé rek. waaw mhm. ngay avancé rek ndeysaan léegi nag nu bëgg xañ yàlla loolu ëpp naa def dëgg la kon ku ko bëgg xañ ñëpp war nañ koo jàpp ci loxo bi nekk doo ko fi xañ waaw doo ko fi xañ que ki samp ab ab pharmacie mhm. fi ko samp nun ñëpp a ko moom mhm. fi ko samp nun ñëpp ko moom impôt koy laaj nun ñëpp a ko moom kon nag amul kenn comme ko ci war a sañ parce que nim ca amee sañ-sañ samp ko foofa te muy sunu suuf ñun ñëpp lañ amee sañ-sañu liggéey fa bu waxtu julli jote ñu dem julli ci ñoo ngi encouragé ñi ciy taxaw nag ak ñi nga xam ni ñoom seen bopp ñoom la yëf ya dal julli dal bu mu jotee lu ñu jàppoon nañ ko bàyyi dem julli ci rek mu jax tàkk aqimi salaata li dulooki shams ilaa xasaqi leyli wa quraan al fajri mhm. inna quraan al fajri kaana mashhuuda macha allah jërëjëf jërëjëf oustaz loolu ci actualité yi la fi wuutu ngeen nekkoon fële itam doon ko dégg ak nga xam ne moo ci aju eh, gannaaw damay bëgg bu minuit jotee ma yeewi la te auditeurs yi itam dinañ bëgg a saafante <laughs> yow ci ci yi nga xamante ne mooy numéro rajo bi ñett numéro yëpp incha allah ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ak 825 18 30 ngeen saafante euh, bi ndax bu minuit jotee ñu mën ko yeewi noppalu ji. incha allah balay loolu oustaz Sénégal moom ñi ngi woon ci aw maral jamono jee yëpp di ñaan. Mhm. borom bi subxanahu wa taala wàccee fi ndox. ba mu mhm. dooroon koo wàccee sax ci ay euh, gox yu bari ci biir réew mi. Mhm. ndakaaru itam mu taw fi démb ci maanaam ci fajar gi te itam mu yendoo wi ci wiccal. waaye daa mel ne dañoo maraloon ñëpp daru di jooy. naan yàlla tawal mu tawit ñu bare bari darooti di jooy naan taw bi de indaale na maanaam fekk nañu ci ay lorak yu baree bari ak inondation yeeg yenn yi nga xam ne moom la àndal loolu noo koy jàngate. kàllaa la ma yàq di ma amara yàlla def na lu tax ngeen yeb ma waaw lan moo tax ngeen yeb ma ñaan ma taw ma taw ngeen naan ma lu tax nga taw waaw ñaan ma taw ma taw mbàkke mas ngaa dem ci àll bi ah, bu yàllay saxal gerte gerte képp lay saxal mm-hmm. day saxalaale ñax mm-hmm. am déet mm-hmm. dëgg la day saxal gerte saxalaale ñax. waaw wallaay moo tax ñuy bay. Mhm. da ngay dagg ñax mi. Mhm. bàyyi fi gerte gi. Mhm. wala nga dagg ñax mi bàyyi fi dugub ji. dëgg la de kon yàlla du saxal gerte képp. loolu du programme ndax. ndax yow la gerte gi arrangé. waaw dalaa am am ñeneen. waaw ñim am ñu bàyyi meeg yooyu. waaw di di di dund ci ñax mi. kon day saxal gerte saxal ñax. am déet. nga seet nag bi la ci intéressé. dëgg la dëgg la. dëgg. taw bi noonu la. Mm-hmm. yàlla day taw. Mm-hmm. est-ce que ñun dong lay tawal. déedéet déedéet. Mm-hmm. moo tax fi ne nun ñoo war a wutal yoon ndox mi yoon wu muy jaar. ñu ko tudd ay canalisation. wala assainissement. su fekkee suñ tawee ba noppi ndox ma dem. kañ nga ma sa dégg ndox mu taa biir Dakar tëx dem. waaw. mën nga ko dégg. déedéet déedéet. waaw parce que foofu tubaab yoo ko defar defar ko ay kanaal bu tawee ndox ma jaar ci dem. Mm-hmm. ndeysaan ñun nag ñuy sànci rek. waaw kon ñun dañuy sànci te duñ defaral ay canal duñu ata duñu xam duñ ko waxee duñ defaral assainissement bi dañuy ñëw rek sànci noonu. rek ak tali. Mm-hmm. léegi fi ndox war a jaar ñu ne ko nag fii moom dootoo fi jaar. Mm-hmm. mu ne ah man danaa dem. mënuñu woon a ñàkk ndox mi de bay ñaan mu ñëw waaye bi mu ñëwee itam tey ci suba gi bari nañu yendoo ak ay jafe-jafe jeex na mais am nañu daan yendoo jafe-jafe gën leen ca jafe-jafe ba mu tane lool mhm. Mhm. ala kulli xaal yàlla buy taw day tawal ñëpp day tawal doomu aadama tawal ñeneen ñunul doomu aadama léegi nag ñun ñoo war a wut su suñuy pexey wutal ndox mi fu mu jaar bu tawee ba noppi mu jaar foofee jàmm ne ñooy buñ ko defu nag fii rek la ñu mujj mooy sanc ñuy sanc ak ni ñu koy sance xam nga léeg-léeg ñu ñu jaar fenn maa ngi man la gis nga mbàkk lii fii juróomi at juróom benn daañu am mooy dem ba uuf tali ba defa sa waaw ndox mi na ñëw ak lu mu bari bari bari rek tabarkal la mm-hmm. waaye dégg nga gone ga la ma waxoon moroom ja mm. euh, booy mu naa ah, mu ne ko taw lu muy jariñ mu ne ko xanaa yàqi daal <laughs> moom doo nga umpale njëriñul taw waaw mu ne ko xanaa jeex na booy taw lu muy jëriñ mu ne ko xanaa yàqi daal ndax taw taw ba daa yàqu ne dàllam donc taw li fekk doo ko jaarale fu muy jaar da ngay jàpp ne rek taw bi dafa ñëw pour yàq mm-hmm. mais yàlla du yàq Hmm. mooy al alimu mooy al azir dëgg la mooy sukkuraan ci laaj bu am solo macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu yu am solo yooyu kon réew maa ngi noonu ni ngeen ko fekkee mooy rek ni ngeen ko bàyyi woon ndeysaan eh, léeg-léeg mu bare ay coow lool léeg mu bari ay jàpp lool léeg itam mu bari lool ay ay rumeur rek yi nga xam ne mooy am ci diggante bi am na ñu ñu fi teg loxo ñoo xamante ne wax lu ëpp tax ñu tegoon leen ko ndeysaan euh, ci lépp delluwaat ci liberté d'expression ak yi nga xam ne moo ci aju waaw ci feetu tabaski yi itam ñi ngi doon wax mbirum Xalifa Sàll ñu doon wax naan nañ ko gracier nañ bokk ci ñi ñi waaye daa mel ne loola mujjut sotti yooyu yëpp xam naa mooy njàngat mi ngay mujjee jàngat ñu tàmbule jël auditeurs yi ndeysaan waaw ñu ñëpp day mm-hmm. borom bi daa waxoon ci wàllu wax mm-hmm. xaw xawlan sa diida la bëgg mooy wax juy defar bul blessé kenn bul leble ci say wax bul ca fay bor suñu ablaar moo ñu ko daan jàngale noonu ndeysaan bu leen ci leble bu leen ci fay bor leen ci leble bu leen ci fay bor wax bu amul leble amul fay bor rek wax ci rafet na wax ci jub na ñëpp ci mën a jariñ dëgg la dëgg loolu lu am solo la mhm. bu dee mbirum xalifa a sàll mhm. moom it loolu la mhm. euh, sunu borom li muy dogal lu métti métti dogal ba day am dëgg la waaye bu jeexee lu métti métti mi ci day jeex gis nga ñaar ñi boroom xam-xamu diine ak politicien ku ci ragal kaso doo def doo def doo def doo def loo loo xam. dëgg la doo ko def mm-hmm. <laughs> doo ko def de. kon ñoom dañ ko war a ñeme. ndax loolu la loolu noonu la àdduna tëddee waaw kon nañ ko ñeme rek bu jeexee nag jeex tàkk waaye bu jeexul de moom dafay nekk rek ku ci nekk dénk sa boroom sa bopp gis nga yusufa ba mu nekkee ca kaso ba ba mu ne waa ji uskur ni ànd rabbik mhm. yàlla yokk na pen ba wallaay am leen dëgg la parce que doon def pexey génn maanaam pexey boppam waaw na ma buur bi fàttaliku ndax ma génn fi ma nekk waaw sunu borom nag daal di ko yëgal ne ko ah waaw hmm, fa la jeex na yow dangaa defe ne yaa fi dugal sa bopp man mu dugal la fi ndax coow li dañ ndax yaa ko ñaanoon doo ma bàyyi ba ma génn la rek daal ci yokk bi daal si na <laughs> yàlla yàlla moytali lépp ci jeexal yëpp tabaarakallah amiin yaa rabbal alamin jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf oustaz kon ñu jaajëfal la baax ci xaaj boobu daal di jël 30 minutes yi ci des jox ko auditeurs yi bu ko defee ñu jàmmante ak yow euh, kenn ngi noonu oustaz ñu bàyyi nga jël ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah Moustapha Sall Sall waa kay Ndiaye na ngeen def ma sa coono yi sigil ndigaale mbokk mi wàññeeku Ah, ci sunu koñ sëñ Mbàkke kii dafa am ab dëj ma dem ca dëj ba di jaala ji faa fekk ko fa ndeysaan ndeysaan insha allah insha allah ñu ngi lay mas soxna yow it jërëjëf eh, ñaan ñi nga ñaanal Sénégal yi yàlla nañ ko yàlla nangul amiin amiin yaa rabbal aalamiin ah dañuy wax ñun Sénégal yi hmm. ah war nañu dellu suñu bopp ci yàlla cëy ndax dafa toog tawul hmm. ñu ñaan ko mu taw hmm. kon taw na nag nan ko sant. Mhm. dolli ko ñaan ndax mu dolli ñu. walaay layin shakartum. Ah, comme mhm. tubaab li wax on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mhm. ñu ne dama bëgg a lekk nen. te doo ko faj nen mu lu nekk. layin ndeysaan. ah ñu ñaan yàlla ñi nga xam ni loru nañ ci yàlla doolu ci sutura si sutura Sénégalais yëpp. amiin. jërëjëf Massa Soxna Mbacke Sylla ñu ngi lay nuyu yow. layin ndeysaan. jërëjëf soxna yi ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñoo ngi leen di fay baax. jërëjëf jërëjëf Ndiaye. Hmm. jërëjëf sëñ Moustapha Ndiaye. Euh, numéro un waaw numéro un la. mu ngi fi ci ah. cité douane. di ànd ak ñun jotaay bi ku baax la tabaarkallaahu eh, te bëgg diine. te bëgg borom xam-xam yi. dëgg la dëgg la ah, aywa asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah Oustaz jëlal kooku waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa Oustaz. waaw. premier auditeur bu Sud FM seen rajo 98 point 5. na nga def. amiin <laughs> yàlla nañ ko bokk. jërëjëf. amiin. yàlla may la doom ju góor wala njaboot gu góor. waaw. incha allah incha allah yàlla na ko yàlla may ba nga doyal. denc nga ñaata soxna. maa ngi ñaat lakk naa la juróom-ñaar juróom fukki at amaguma njaboot góor gu ma am rek mu dem. ndeysaan ndeysaan ko fi ñëwati yàlla na yàlla na yàlla defal ko laabi siina mu toog incha allah jërëjëf macha allah mbokk moom yàlla na yàlla nangul ko ñaanam googu suñ mbàkkee ndax itam ñaam gu am solo la dëgg la ñu jël kii eh, aywa allo waaw asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah jàmm yàgg na roso ko waa roso ñu ngi fi ñu ngi si jàmm. Mhm, alhamdulilah. alhamdulilah Oustaz ñu ngi lay ziar bu baax a baax. waa di jërëjëf. di sàkku si yow ñaan di ko sàkku si Mbàkke Sylla. Mhm. te di wax ni kontaan nañ bu baax a baax. alhamdulilah. nañ bu baax a baax di ñaan yàlla ñaan yi nga fa ñaan yëpp yàlla nangu ko. amiin amiin. di ñaan yàlla yàlla defal jàmm sa mbokkum daara moomu suñu mbokk la ñun ñëpp. wallaay ndeysaan Oustaz tey. yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin. ba mu jóge foofu mu nekk ba dellu si waat ci biiru boppam incha allah incha allah wallaahi dañoo kontaan ba xamuñu lu ñuy wax waaye ñu ngi lay dalal di la wax bisimilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf te di sàkku si yow ñaan nag incha allah ñu ngi wax amiin incha allah jërëjëf mbokk moomu jërëjëf mbokk yëpp tabarakallaa di ànd ak ñun jotaay bi di ay auditeur moom yàgg wàdd la tudd ma nga fële ca Rosso Sénégal di ànd ak ñun jotaay bi. macha allah. Hmm. allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam alaaji sëriñ Mbàkke Sylla bisimilah bisimilah waaw ah, man la maam Abdou Samb Daaru Xuddoos Mboro maam macha allah waaw ah, neel oustaz ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf ah, di wax ni wax dëgg yàlla dem màkk gi daa mënut a ñàkk waaye soxla woon nañ ko fii lool <laughs> namoon nañ tamit analyse yi yi ñuy defal ndeysaan wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla bàyyi suñ kanam ba ca kanam. amiin amiin di di ndokkeel tamit Serigne Doro Sylla suñu kii suñu président bi. ala alaaji si alaaji Serigne Doro Sylla waaw parce que vidéo yi ñu doon def maak yëpp mi ngi mi ngi ñu ko doon envoyé suñu groupe bi. soog si defam Sénégal bi. wallaay ndeysaan. wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziar bu baax moom tamit sax nga ñaanal loolu ñu ko bu baax a baax. incha allah incha allah mi ngi lay dé mi ko. mi ngi lay dégg mi ngi lay dégg. waaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax. dara mu doon sa mujjantalu at. amiin amiin. waaw di la wax si yàlla na ko yàlla nangu. yàlla ñu fa dellu delluwaat si yéen ñëpp ngeen baax a baax a baax di leen wax nag ngeen ñaanal ñu bu baax te ñaanal waa daara ji tamit ñu ngi suñu waa daara ji yëpp nag. incha allah bàyyiwuñ kenn jërëjëf. jërëjëf mbokk moomu euh, jërëjëf mbokk yëpp tabarakallahu suñu ñaan yëpp yàlla na nangu. amiin te mooy yaa rabbi yeeg allahuma yi. amiin yaa rabbal bismillah. waaw suñu Mbacke ñu ngi lay ziar bu baax. jërëjëf jërëjëf. Fallou Sow Touba. Fallou bisimilah Sow. ñu ngi lay ziar bu baax bu baax. yàlla na nangu ziar. di leen ñaanal jàmm yàlla nañu ko bokk. yàlla na yàlla nañu ko aj ñëpp rek ak seen xarit. amiin. monsieur bu ñu wut. amiin. baax a a baax. yàlla na yàlla nangu ziar. ñu ngi ziar suñu baax a baax. dëgg la xam naa ma ngay tocc tojal. waaw jërëjëf Oustaz ñu di la jot li suñu mbàkk yi nuyoo sëriñ Baara Abdul Ahad euh, ñoo bokk fal bi ñu ñëw toog nañ waxtaan lu yàgg ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax di wax ne waxtaan yeeg yëpp dara du ko ci raw ndeysaan ñu ngi koy nuyu baax a baax lay ndeysaan jërëjëf nee na dana dogal tool ah loolu baax na <laughs> loolu moom tawféex la <laughs> aywa jëlal kooku salaamaaleykum aleykum salaam bisimilah al ustaaz al maa ngi lay maa ngi la koy delloo la ñaanal yàlla suñu borom la kooku Alassane al Ousseynou Diallo. al Ousseynou d' accord lu la bëggoon wax fooy wooye. fooy wooye maa ngi ziyaaru sëñ Mbacke tamit di ko ziyaar bu baax a baax. Mm, mu ngi lay dégg. di ko ñaanal mu yàgg fi te wér. amiin yàlla ñu fi bokk yàgg te bokk wér. émission yi lépp rafet boobu ba léegi. alhamdulilah. mu ngi lay ñaanal ak yal ko yàlla nangu. amiin amiin. suñu ustaas boobu tamit yal ko yàlla génnee. amiin amiin. ko yàlla génnee. amiin. na ci mbokk yëpp jàpp incha allah mu génn. incha allah incha allah. waaw jërëjëf kon dama la doon ziar rek. am na solo jërëjëf. lépp loo ko ñaan yal nañ ko yàlla boole. ñu amiin waaw kon de tabaarkàlla. fekk la ñu demee incha allah jërëjëf. jërëjëf alhamdulilah. tabaarkàlla <laughs> jërëjëf. waaw waaw Serigne Cheikh daan wax ne. Hmm. léeg-léeg gis koo xam ne ki day gis tubaab bi am ay wërsëgam. waaw mu naan yàllaa ko jaay Euh, fii mooy seen aljaan <laughs> sëriñ Cheikh ne na naroo jàmm <laughs> baa du narul jàmm mukk kon ñaan am xéewal am fexe ba am xéewal yi baax na mm-hmm, ko mbokk mi asalaamaaleykum nag la koy delloo mm-hmm. mm-hmm. bokk waxtaan ci ndax ku ci nekk moo ko wàccee bëgg a dem feneen daf lay weesoo. wax ji bari na lool. wallaay ndeysaan xamuñu ci dara. li xew ci àdduna bi li ñu di def bu bala mu bala ñu koy xam rek mu feeñ. kooku ci biir buy def la muy def di yoota ka dugal jëm kooku yàlla xam ñun xamuñu ci dara. yéen a wuñu kenn lu bon. waaye dañuy fii dañuy seet loo xamante ne si dañu si nekk ñaanu tawoo. ba taw ñëw ngay am loo ci ba defal yooyu dama ne hmm. nañu toog ku fekk yoonu ndox nga dëkk ci hmm. bu ndox bu ndox la soxlaa yoonal bi dina fa jaar waaw la ko wax de lu wér nga wax de kuy dugg ndax ku mun ta ku ko am lu fa dëkk na nga delluwaat seen dëkk parce que Dakar gi ñëpp ba ñoom ñoo ci nekk yoonu ndox yooyu yëpp ñu bëgg ku dëkk dañuy nax seen bopp ndeysaan te mënuñu teemu taw bu mukk yàlla sax moom bind na taw bind na doomu aadama bind na leneen loolu doomu aadama. wala am salaam bind lépp doomu aadama ci gën a néew. Mhm. te moom la ci mujj a bind. kon nag